ndombee ci ah, la dikkee baaji comme nañ ko dee defee rek si sooy yaatu dog bi wax naa leen ne saa yu nekk li ngeen bugg rek loolu la ñu def moo tax it tey ma leen daanaan boo xam ne ko xam ne Gambien la mu tëpp daal bañ a ñib si ah waaye ba tey rek andil leen daanaan boo xam ne mu ngi toj biir réew mi di def yu baax def yoo xam ne daal macha allah mu nekk koo xam ne euh, Gambien la waaye euh, dem na ba biir Sénégal di fa bés fa di fa daanee doole di def loo xam ne mooy loolu daal ah foog naa ne ñun Gambien yi ñun tamit it's high time pour ñu celebrate suñu daanaan yi moo tax tey ñu andi ko fii si Yafi Touch bi ah, du kenn lu dul ah, MC ah, nuyu naa la asalaamaaleykum di la dara jàmm fii si vidéo di si Voice Out Digital ak Yafi Touch bi. waaw maa ngi lay fay maa ngi nuyu Gambia maa ngi nuyu Sénégal maa ngi nuyu àdduna nuyu worldwide mm-hmm. comme na ko waxee rek ñu ngi Sénégal ñu ngi àdduna ñu ngi fune MC mm-hmm. Lia Sénégambien mm-hmm. booyo waa di bëggee yaa fi toj comme na ko waxee da nga toj xam ga fii moom ku tojut moom du fi ñëw ah ku toj rek la ñuy xool tey nag ndeysaan xam naa di ngeen ndax am na def corona bi max bi foog ñu takal ko ah corona bi dem ñëw rek bañ a dem àllaay métti na de. lii métti na man maa ngi def makeup boo xam ne tey bëggoon naa ñëpp gis ko waaye fu mu nekk nii kanam fii rek naa gis tey tey moom jël leen boobu ma may leen ko. lii ah, comme nuñ ko dee defee rek si sooy yaa fi toj bi. Ah, naa la bàyyi nga nuyu sa fan si nuyu ñi ñuy wax gaa yow yaay kan. waaw maa ngi nuyu Gambie maa ngi nuyu aduna di nuyu wàllu waaye di wax gaa yi ne Lia ngi nii MC Lia doomu Sénégal bi doomu àdduna bi. Mm-hmm. di wéy musique bu ne di play guitare di mm-hmm. nekk euh, artiste boo xam ne muy gàmm muy Sénégal base Dakar. Mm-hmm. di play ak orkelam Feeling Band Sénégal bee band. waaw comme ni ko Moussa Mbacar defee rek. dama foofu foofu. noonu nga nekk di toppee. waaw that's very nice euh, léegi euh, di ñu mën a wax ndax yow Gambien nga wala Sénégalais nga parce que ñun moom taal lañ naa jaawale ñu naan kii ñu naan Gambien la ñu naan Sénégal. ban la ci xam nañ ne yóbbee na la daal waaye nan nan la yor tuuti daal. waaw non Gambien laa nag. Gambien Gambien laa ban musique moo ma boole Sénégal lu trop. Mhm. moo ak nefa nefa di jëngu parce que mhm. ku ne xam na Sénégal musique. Ah. Mhm. daan dafa feeñ. ku ku dul daan dafa mën a feeñee. yàlla def ci boobu ñu koy def ah, ba mu génn ci àdduna bi. réew maa ñuy gis àdduna ñuy gis ñoom seen. waaw mais nag dëgg bu neexee bu am. Gambien la ñu dem waaw ah, loolu neex na trop dégg ngeen lu mu wax ñun Gambien am nañ ay ndaanaan loolu moom suñ ko woowee dañoo xapi mane ne suñu wax loolu dañoo happy ndaxte ah, nit ku nekk ah, sa dëgg ngay tiitaroo. mu nekk lu am ah, léegi yow mun nga ñëw wax kañ nga commencé this music job. waaw maa ngi commencé musique tout seven eight laa commencé play musique. ok ok ma Gambie moom suñu dëkk la nekk nag des fois li nga moom moo gën luñ la may. luñ la may wax dëgg parce que Gambie liñ nekkoon di play musique. gars yi mën nañu gëm. ba mhm. ñu xam ne am nañu talent ñu génn toog Sénégal di play musique. Mhm. ak àdduna yëpp waaw di bëgg sama brother sama xarit seex euh, bi. Mhm. di nga ñoom jëgu ñaata ma vraiment. gars yi jàpp ci liggéey bu mu tey mu demee day nii. waaw mooy nag na euh, Gambie bàyyi xel daal daa ni. yi ñu bàyyi leen xel bu baax ndax yéen a ngi ñëfe ngeen daal waaye óolute bi foog naa ne moo des. waaw waaye nag xam nga fii moom pour ñu wóorul la sax sa bopp man balaa maa xaaree sa fekkoon par naa ci parce que Gambie laa nekkoon di play musique depuis euh, depuis 2007. 2007 2008 laa fi génnee 2010 ma dugg Sénégal. Mhm. ma ne man pourquoi pas man du ma jël leng bi. Mhm. en lu mhm. ah, si na. ak sama baal muy Sénégal bi yëpp baal di bëgg di leen sawla. lu tax ma tuddee leen bi yëpp waaw ah, parce que man li yaa Sénégal bi yëpp laa. waaw yaa ngi yaa ngi fële waaw jël baal ma tuddee ko Sénégal bi. Sénégal bi loolu mu nekkal lu rafet trop ah ndaxte Sénégal bi moom loolu Sénégambien baan bi dina dina am xolom ndax gars yi Sénégal suñ ñëwee Gambie sax da ngaa dégg ñu ne fuy Sénégal bi ñun dañ bëgg a dem Sénégal bi ah waaw mu nekk lu am solo la yaa ba tey rek ah, comme gars yi nu ma leen ko waxee rek sooy yàq tëj bi saa su nekk ñu ngi leen ko ñu ngi leen ko andil fii ah, si VOD bu leen ko dee mis ay naanaan lañ leen a andil ñoo xam ne yéen naanaan lañ waaye mais bi xamu leen ne naanaan lañ Gambia bi it's high time pour ñu celebrate suñu because loolu fu mu nekk nii ñu naka fu ñu bëgg rek dinañ ko te Gambie nii dinañ fa dem ah. yaa ndax Gambie football bi mu ngi si des. du si du si musique bi. lu nekk Gambie baa ngi si gannaaw waaye léegi moom alhamdulilah ñu ngi am ñoo xam ne dañ koy loolu. dafa des ci Gambien bi xam nga xam nga tey nit ki. Ah, mhm. nit ki balaa mu koy balaa balaa muy xam li moom dafa mu fulal ko lu dëgg. Mhm. parce que dama koy wax dama koy wax TFM dama koy wax éditeur éditeur ci àdduna bi dama koy tudd wax ma ne mhm. Gambien bi war na jël li moom. parce que xam nga nit ñi moom ah, liggéey ak man rek comme ku ci mel ni man. wala ku ci mel mel ne ci boobu Sona Jabaate. Mm-hmm. xam nga. Mm-hmm. ñu liggéey ci musique Afrique bi di représenter Gambie. Gambie bi waaw mais dafa des si boobu bi tamit ah a lii de maa ko moom. ko defee tamit gars yi maa traw mais gars yi ñu ngi liggéey ah. Mm-hmm. vraiment di bëgg gars yi di bëgg Sona. di bëgg King Mac. ndeysaan ay production yi waaw. loolu rafet na ah laay bëggoon nañ nga wax ñu tuuti ndax bi nga bi nga jógee Gambie dem Sénégal. am nga ay difficultés balaa nga xam nga Sénégal moom yombut pour nga toj fa. so ndax ah, am nga tuuti difficultés balaa ngaa toj. non métti na trop Sénégal moom day def métti trop métti trop mhm. métti trop vraiment parce que Sénégal musique la boo xam ne nii. Mhm. naxante bi moo tax. Mhm. liggéey la ciy génnee. nekkul da ngaa ñëw rek di woy nii da nga play back live nga play orchestre nga yow di play. wala sa guitare wala sa kora. Sénégal nekkul ne naxante mooy moo lay feeñloo. non Sénégal moom Africa. avec ñun Sénégal mooy number one mm-hmm. maa ngi bëggee ñëpp di bëggee sama gars yi yéen ci YouTube bi di bëggee gars yëpp di bëggee mon ay mon frère Mosimo Sidi Diop moom tamit gàttal sama waa la ok waaye difficulté affaire si daal métti naa mën nga ñu ñamal dute nu méttee woon daal because am na ñoo xam ne nii bi am na artistes yoo xam ne ñu fi bëgg a dem Sénégal mel ni yow xam nga ñu ngi xalaat ne suñ demee ndax dinañ am ku ñu jàppale ndax lii yéen ñi am ndax lii yéen ñi am man ñamal ñu gaay tuuti rek ñu ñu ñu xam difficultés yi nga jaar foofu noonu. wala balaa ngaa toj fii balaa ngaa toj daal. dafa métti dafa métti dafa métti parce que lu la ngay daj. Mhm. parce boo demee xam nga ne gëmal ci xam nga ne gëmal ci àdduna ji boobu ngay wéy kenn xamul la. waaw. ngay woy kenn xamul la nga bëgg ñu xam daa métti mm-hmm. musique ngay ah. mm-hmm. taxale mm-hmm. li may conseil Gambie woykat rek ak Gambie xale bu juddoo bëgg nekk artiste rek nga liggéey nangoo déglu nangoo gëstu musique dafa nekk ci boobu pratique parce que ñun tey man te sama su ma su ma ñëwee Gambie ah, damay wax gars yi ne jëli bàyyi sa kii about Gambie musique foog gars yi foog àdduna loolu gis mu am njiit njiit mooy doxal dëkk njiit mooy doxal nit ki nangu na mën a doxal dégg Sénégal nangu nañu Youssou Ndour yi sa bes léegi nag Gambie foog ñu nangu dara. Mhm. pour mu mën a dal Sénégal neexul musique de. Mhm. Sénégal Sénégal bu fa tëjee tëjee ko te hmm? tëj nga àdduna. yaa boo ko tëj Sénégal la jàppal na yow. tëj nga àdduna yëpp foo doon tëj nga ko parce que Sénégal boo fay génn rek génn àdduna borom ko fay tëj. waaw waaw Sénégal is naa is loolu moom dégg la parce que Sénégal nekkul ñun ñun xam nañ loolu noonu dañ daan dem ba Sénégal yu bëri ay casting. te ba yombut daal nga jékki-jékki rek tëj biir Sénégal soo soo tojee rek xamal ne yow ndaanaan nga. ah comme ni yow laa yow moom bokk nga si ndaanaan yi yi ma ko bokk nga si ndaanaan yi ah, léegi bëggoon nañ nga wax ñu tuuti um, si affaire um, musique bi foofu Sénégal ndax am na ñoo xam ne ah, top artiste Sénégal yaa ngi bëgg a liggéey any plans daal yoo am foofu noonu in Sénégal right now. waaw maa ngi am album boo xam ne mi ngi tudd album boo xam ne ci boobu international la. mi mhm. ngi war a ñëw incha allah corona mi ngi sonal rek. Mhm. war nañu yàgg na sax man ci suma suma xarit ma na mhm. my friend Cheikh bi. from uh, Diamane. ak gars yu bëri yoo xam ne ñoom Sala bi. ñoo xam ne ñoom bokk na ci man daal. waaw di bëggee di ko bëggee lu bëree bëri di bëggee ñoom mama. comme album bi nga war a génn après corona. Mhm. album bi international album la man ci am na artiste yu nekk am na ñu bëri ci nekk am na ñu bëri am na son boo xam ne. Mhm. Wally Wally Seck mu ngi ci. déedéet kay. artiste yu bëri am na son boo xam ne. album international Serigne Diabaté Mali mu ngi ci. am na am na sax Gambien boo xam ne nii bu mag. Mhm. Gambien mais du wax tur bi nag. ko nuwa dañ ko nuwa suñ ko buggee xam daal nañ bëgg di toog a yaa fi toj bi ba suñ génnee rek nga seen ñu ko. ñoo ko njëkk a appuyer. jeex na ah? jeex na incha allah waa léegi ah, balaa ñu dem ci seen break dañ bëggoon nga ñamal ñu tuuti daal def ñu tuuti ak acapella ñu jël ah dugal xaalis si kër gi la ñu dellusiwaat. dafa lem nañu ndeysaan. tax ma ne fi mu la di ma lambi lambee la saala. ndeysaan dégg naa la njaay nga sant. ndeysaan ay suma lay lamb ci sunu maa dem ma jaayi seemi man dama laa bëgg yëg naa da ngeen maa bëgg lool hmm. waaye nag ma la waaye dem ma la dem ma la dig ma ki yow sama waay nga dama leen bëgg ñoo la gën a bëgg wala Gambia Gambia Gambia nañu gëm suñu bopp ndax ñu mën a dem suñu gëmee am nañu daanan am nañu daanan mm-hmm. am nañu ndaanan mooy ki nga mag sedda moo woy lii dinaa la Gambia am na ndaanan ku ci mel ni jëli bàkku yaate ndeysaan ji mel ni sona jabaate woy ndeysaan dinaa leen si ngeen gëmee seen ndaanaani ya ndeysaan bu ñu nakante ci woy woy am na woyantu am na man bëgg naa ku mën a woy walaay la si bëgg naa ku mën a woy mm. moom nee saala bi moom soo paree jox ñu pound si rek ah ñu jox ko laay lii moom saala borom amateur génneel pound si rek génneel xaalis nag ah su ma ko ak lay wuy bu neex bu mu def nii yëpp moom saala génneel pound si rek ñu dawoo wala nga génnee dalase bi waaw ah. moom jigéen ju baax la parce que dañu wax ci moom lu baax loo xam ne jigéen ñu na man ndeysaan day góorgóorlu. li mhm. tax ma ñëw parce que te yaa ñuy kool bu dem. Mhm. otal di mën a ko jigéen ju mën góor la. Mhm. parce que nit bu nit bu bëggee rek ma noo kii jàmbaar. bu jëree ma taa oto bi ñu dem mën a ko dañoo dem ñu def jigéen bu mën góor la waaye instant yi yàgg na Gambie te ñun fu mu nekk nii ñu ngi mu ñibbi sonn nañu. bëgg nañ mu ñibbi gars yi saa yu nekk maa ngi ko wax gars ne maa man maa bëgg kii ñibbi waaye waaye balaa ñu teg rek di ma woyal suma benn sista Eva moom moom dina yónnee xaalis moom moom moom su yónnee xaalis rek dinañ la ko waral Sénégal nga jot si <laughs> ba tey rek ah ñu fii si Yafi Touch bi comme ni ma leen ko waxee yéen a dégg baat bu neex boobu noonu te lu yu am solo la Gambie am nañ naanaan nañ it's high time pour ñu euh, góom ne ñun. am nañu dëkk bi yëpp buga ah, balaa ñu dem di andi yeneen artiste fi andi ñeneen ñu ngi fi am ñoo xam ne ñu ñee toj yoo xoolal li nga woy nii rek su ma ko war yaram bii fa taxaw yi fi ah? indi yëpp xam nañ ñu maan amul ñu mën a indi fii ci àdduna la xamuñ mm-hmm. ñu fii nii yëpp ñu kuñ indi muy waa ku kuñ indi rek dafa daf ñoo daf gis di ñuy wëy muy waaw képp ku fi ñëw di play mm-hmm. mu war sa yëf dañoo gis di ñuy wëy muy jooy mm-hmm. I don't think waaw kan ndekki li nga moom boo ko boo gëmee dañ ci génn. de waaw. dafa des gëm gëmel bi daal man foog naa moo des xaw ma ragal bi la man mënu maa understand. mais nag foog naa ne ragal bi la tamit. waaw mën na nekk ragal mais nag gars yi gëm na seen bopp de man de maa ngi def Sénégal soirée yu mag ci àdduna bi ñu ma mën a seede ci ay di Europe bi yëpp ma koy présumé soirée. ci Afrique bi ma koy joué. mais nag gars yi may call des fois fan si yéen may da nga war a ñëw Gambia. waaw waaw yow li nga def nii moom ah yow yow yow. yow Gambia ah man su ma paree sa di nga ma defaral benn acapella bu nekk si suma yaa fi tëj. dafa des si Gambia rek waaw ah. waaw ba tey rek ñu dem te sopp rek ñu fii ak yéen ah, Voice Out Digital ñu ak suñ gan mi suñ delsee rek mu gën a ne yéen a ma gën a xam ni ñu koy defee. namu naa la fa nga ne di la xalaat saa su ñibbi siin waay namu naa say reetaan namu na say reetaan su may namu damay kontaan ndellu siin waay waay salal bi namu naa la àdduna namu naa la xaw ma li may dund nii yow li lan la léegi maa ngi lool lii léegi maa ngi lool lii ba eh, comme ni ñu koy defee rek si yaatu benn bi wax naa leen ne su fi ñaar suñu jël see rek mu gën a ne ba tey rek maa ngi fi nag suma gën bu ñaaw bi borom baax bu neex bi borom baax bu rose bi ah Aliya ba tey rek eh, am na question suñ la bëgg a laajte tuuti. Eh, dëgg la ñu la xam bëri nañu waaye am na ñoo xam ne. a ah, ba tey rek bëgg nañoo xam lu bëri si yow loo xam ne mënuñoo am time pour mun ko waxtaan ak yow. te ah vidéo yi dafa nekk télé boo xam ne ñëpp a koy seetaan. ñëpp a koy seetaan Adama Barrow ka dafa toog di ko seetaan. ah moo tax it lu fi ñëw rek dafa lekk. ah léegi bëggoon nañu xam am any plans fii si Gambie bi xam nga nit ki tamit doo dem beneen réew di daan sa doole xam nga. bàyyi sa si gannaaw comme ni nga ko waxee rek ndax am nga any plans fii right now yow bëgg a def fii si biir Gambie waaw am na plan yu taxaw yoo xam ne maa ngi ciy wax sama ndigal kii mu mag yaa moo mm-hmm. xam ne bu ñu ko di Gambie mais xam after Corona next year la. Mm-hmm. parce que bëgg naa bëgg naa suma yàlla ma ñëw di ma taxal benn studio boo xam ne a jàppale booy yi. Mm-hmm. comme du ñuy def musique. ñoo xam ne laaj nañ ko def musique parce que musique dafa nit band live play band. bëgg naa ñu def loolu ñu jàngal ndóoy yi pour ñu a play band daal. parce que musique li am nga mën nga def mën nga woy mën nga def lu ne play band mais lu mujj mooy band moo mujj. band ngaa play sa band pour ñu a di woy mm-hmm. foog Gamben si bàyyi ci xel li mm-hmm. ngay wax booy du booy mën a jàng musique mm-hmm. gars yi dañu boole siw ak man siw ak man nekkul benn mën nga siw te doo man ñëpp mën nañ la xam man xaalis ak man du la ko mën nga ñëpp mën nañ la xam te doo doo mën li ngay def you have to practice nañ gëm jàngi musique li may conseil ku ne Gambien rek nañ jàngi musique man ma nee Gambie bi loolu man dama dem ba xam ne xaw ma musique. Hmm. loolu Sénégal waaye ma ne fii. Hmm. ma dem ba xam ne xaw ma dara. Hmm. ma ne de eh, man de war naa nekk star comme yu man naa mën a nekk star comme benn ku ñu jot àdduna bi. ma ne man lu ma def sama yaay waa Sénégal xam nga Sénégal. yaa am Sénégal ma dem fu ma dem ma dem ci gars yi di fréquenté ay Baye Omar Kane mhm. ay Ismaïla Lo mhm. xam nga ay ay Aliou Mbengue artiste yoo xam ne ay légende leen ay Demba Ndiaye di raamal gars yi di tarbiwu foog nga mhm. loolu moo tax tey ji boo yàlla ak may fay maa ngi dem maa ngi play maa ngi am sama baan maa ngi joué samay soirée Sénégal. fu ne li ma bëgg daal mooy li ma bëgg daal mooy def fii benn studio boo xam ne. tuddee ko Sénégal mbay studio. ndeysaan dimbale booy. bëgg a def musique. booy bëgg a nangoo dégg nangoo bëgg a xam. kàttanu yàlla. waaw ndax yow gëm nga ni Gambie musique bi dina dem daal. waaw dina dem buñ nañu ko déglu rek après buñ déglu nga wax. naka la ñuy waaw foog ñu déglu parce que xam nga ku lay waxal da nga koy déglu ba xam lay wax. parce que su ma di la waxal da nga war ngay déglu. man na la bul nangoo dem studio rek di génn woy studio moo nekk dara ñaar. dem studio rek nga def nga ñëw dafa yomb. nga ko jàng. lay play guitare dama lay play kora. loolu suma musique la. léegi nag pour lan moo tax waaye lan moo tax booy demuñ di jàng yi musique jàng instrumental. ñoom dañuy toog nii rek. benn bés rek ñu ne waaw ñoo fi toj daal. waaw damay studio damay studio ci benn rek. benn mm-hmm. benn projet studio comme fit. Mm-hmm. dama bi yokk mu yokk copyright voix bi autotune ko. Mm-hmm. son bi génn ñu ne mën nooy fekk gàmm bi yëpp xam ko. fekk na amul dara. waaw su ñëwee Sénégal su ñëwee Sénégal daa toj ci suuf. waaw. kon loolu la ñu war a bàyyi. waaw parce que gars yi fi tamit dañ dee wax ne Gambien bi dañ gisamul laaj ba trop. loolu léegi waaw waaw xam nga waaw dama ko dama ko man li li ma dégg loolu laa dégg sama time man daal damaa dem Sénégal man daal dama war a nekk daal happy future daal. si contre yi. su ko bëggee su ko bëgg nga na ma ko def. da nga koo def ndeysaan. waaw ci laa dem Sénégal la ngi mm. teewal Sénégal ngeen musique bi. Mm-hmm. ba tey nit ñi nga xam ne naan liyaa Sénégal bi yàqu. Mm-hmm. wala liyaa ñu ne la liyaa bu Sénégal. bu Sénégal liyaabu Gambia la nag bàyyi leen sànq nag liyaa nag ñaamu moom bi waaw léegi nag li may conseil booy daal mooy nañ nañ déglu jàng yi musique musique dañ koy jàng musique nekkul am studio rek hmm. studio mën a am jënd studio jënd sa am jënd sa lépp micro carte son teg studio woy yokk sa voix autotune ne man am artiste dangaa nax sa bopp jàng yi musique waaw loolu doxul doxoon de. fi ku toj ci moom doo xam moo toj. waaw nit ñi ñooy toog nekk yow tos yow yaa ngi ne xam nga waxuloo ñu ne yaa toj. ñun ñoo toog rek xam na da nga toj ñu oola fii si Voice Out Digital. Iya. ah ba tey eh, rek ñu ah, ngi fi am suma gan bi dégg nañ ñu wax ah. affaire si daal ah, jàngala ak déglu la. Iya. nekku ne da ngaa toog rek génnee tey benn bés rek génnee benn acapella dugg studio rek nga ne ah man maa toj. xam nga nga bañ a jàng fa naan musique bi tamit dafa laa jàng. nit jàng waaw man ma jàng man ma jàng school jàng yow français ma jàng school fii boo giree boo giree lan boo giree ay waaw school dem Dóor Dakar boo nee Dakar dama jàngaate school ba am ba am xel. waaw oh. ba فكتير أمبك ماري ما جاء جن اسمه ألبوم بي ألبوم ما ألبوم ما زي ما لا أمبك لسه ألبوم جن ألبوم بي جن ألبوم تري جيبوا من نايس نايس ألبوم بي جن جاي جاي ديكو بيجي سنغال ديكو بيجي نتيجة ملا ملا هتوك ويا خمنا ني أنا جي أدرس يبري سنغال سو بي جن يا هذا في يوم كذي كون نيجي خم نيجي كذا ما كان إنشلي يا سنغال بي يا سنغال بي mais daal li may conseillé daal mooy. lépp loo bëgg da nga koy jàng. da nga koy jàng lépp tax nga bàyyi sa laaj da nga koy jàng bu mën ko. bu mu naxante musique amul naxante. amul naxante waxal de ci ko. si kaw da nga koo daan waaw ba tey rek ah, luñ ko loolu moom dégg la si moom pour naa yëpp la naxante bi su demee rek soo demee ba si kaw rek da nga dee daanu. Ah, léegi. ah dinaa bëgg nga defaral ma acapella pour sister Eva tuuti moo paus ñooñu ay ay ay borom ay borom xaalis lañ. ndeysaan ñoom saa su nekk rek ñoom ñoom ñoom tamit fii lañ bokk VOD waaye nekkuñ fii léegi bëggoon naa nga defaral ma acapella bu ndaw bu neex pour paus Pa Ousmane Thiam yaa maa dégg bii pour Pa Ousta ak Sista Eva ak oncle Fax ngeen génnee xaalis ah defaral ma gars yi ñoom ñu ngi engagé defaral ma wuy bu neex pour gars yi. <laughs> déjà suñ paree ñu yónnee EPS bi di dinaa dinaa jël sa numéro su daan paree da nga yónnee ko wane Pa Ousta nay nga trop waaye bii moom woy bu neex bi moom da nga génnee xaalis. déjà Pa Ousta la. waaw Pa Ousta ak Sista Eva. Sista ah. Eva mooy jigéenam jigéenam bu baax. Pa Ousta jàmm Pa Ousta. paus tey ma lambi lambee la nee naa la yéela laa lay wëyal yéela duma ko wëy ku ñaaw duma ko wëy ku réew waaye tey ma lambi lambee la ndeysaan mbokkum yaay yi ci daa ndeysaan tey ma lambi London waaw waaw nañ yónnee paus yi paus waaw ak oncle fax oncle fax oncle fax yow ci la ci la ndeysaan dégg naa sa yaay nee na dalaa ñaanal. ndeysaan. aku naa sa baay aku na dalaa ñaanal. ak awa ba ak awa ba. awa ba bokkul la jëri too dabi. ndeysaan ma la ci la ci la waay. ñaaw leen benn yoon. ndeysaan aku jigéen ñi Gambia. waaw ah, si ngeen bëggee li ngeen bëgg man ngeen koo doon. ndeysaan gëm seen bopp waay. sa ka sista ku gëm boppam la ndeysaan. man maa bëgg jigéen Gambia. man maa leen bëgg ba bëgg ni ma leen bëgg. waaw wéyal ma Moussa nag suma caméraman man Musa. Musa, Musa, ah Musa, Musa, Musa. Musa. Musa. Musa, Musa. Moussa Musa. Musa. Musa. ci Musa. Moussa Musa. waay Musa, léegi Musa. ngi Musa. yaa ngi def lu naay soo ndeysaan la ñaanal yàlla waaye non la mos ko baax Musa, moo def ci xaalis yéen lan la yaa ci Musa, cameraman yi yow mii yaay my bro. Mm-hmm. nee na la yàlla na nga ma ne la waaye dala ma jox ma jox kii raay yàlla na nga raw. waaw jinne kamara maa ni waay. ndeysaan ñaw leen. Mm-hmm. ci adduna bi. su ma mm-hmm. demee Italie. su ma demee ma demee France Paris waaye. ndeysaan ay lambe lambe. ndeysaan. bëgg naa ngeen gëm seen bopp. Gambia lépp a ngi fi. aywa Gambia lépp a ngi fi. loolu moom dégg Gambia lépp a ngi fi. ñaan ah, si sa tiida. ndeysaan di moom moo ko moom. waaye itam dama suma sa di nga raw ndeysaan. nga raw say maas. ndeysaan mu ngi lay sow. li ma la ci la ci yàlla ne naa la gëmoon sa bopp sista. ndeysaan. di nga raw say maas. aywaay dégg naa baa ji nga sant waaye. ndeysaan noo. waaye jox leen ma sama bambou bi. saa su ma sala di nekk su ma bi joxal ma. su ma leen wuyalee su ma leen wuyalee. ndeysaan dama lay lakki lakki ndeysaan yàlla na nga raw sëy ma amin yaaramin amin yaaramin loolu neex na saala léegi su ma ñu ngi si lan si lan lañ nekk ban weer lañ nekk saala si august august septembre octobre novembre décembre foo moon si yëpp joxal ma suma salaire bi baala man maa la ko mais xol bi seeda guy saala Ndiaye soo paree rek épiesal ma ko suma salaire bi foo moon si dégg nga <laughs> ah ba tey bio di wax naa leen ne ñun ay ndaanaan la ñuy andi ah lii moom xam naa ne nekkul ay nettali yéen a ko déggandoor yéen a ko gisandoor ah kii du Sénégalais du dara Gambien la doomi Gambien la mu nekk di def lu nice nekk di def lu garaaw di toj dëkkal ah nañ jàppalante dégluwante ah ba pare affaire si dafa dégloo soo ko dégloo rek di nga xam nit ki lu mu wax. xam nga musique soo bëggee xam lu nit ki di war a nga naan ki musique am bi nag ay kàddoom lu mu wax. ah moo gën a am solo te wax na fi lu am solo. yow li ñu ñamal nii rek fu nekk nii vidéo yi wàcc na ba zéro waxuma laa suñu gitaar bi baat bi. waaye gitaar bi jënd léegi. waaw dama ragal lii bi waa corget bi wàccee ko si suuf <laughs> bi. <laughs> ma ragal ma ragal man corget bi waata. Ah. Ah? te su waree waata ñu ngi ne terminal bi dañ am ko ñu saa la waxul la nga waaw léegi ba tey a ah, ñu ngi fi si bés à digital si sooy yaatu bi comme ni ma la ko bi soo bi nekk na loo xam ne dañu andi ndawi réew mi. ñoo xam ne ñu ngi toj ñoo xam ne ñu ngi def lu baax di def lu nice biir réew mi. moo tax it Saala ma waxee sa affaire rek ma ne ko lii moom. nekkul loo xam ay toogaay la foog ñu jóg def si lu wax si def si nit ñi mën si gis. léegi lan nga bëgg am pour wax ndawi réew mi. ñoo xam ne ñu ngi laa seetaan. ñoo xam ne ñu ngi bugg a mel ni yow. bugg a eega foo eega. xam nga rek bugg a nice na yow daal loolu mun na pour wax tamit. waaw li may conseil rek mooy yow moom xale gëmal sa bopp. Mm-hmm. nga liggéey. Mm-hmm. gëm na yaa fi man mm-hmm. lépp looy def jàppal na yow daanaan. gëmal ne bu gëm kenn gëmal sa bopp. sa bopp mooy sa doole. nit boppam mooy dooleel. waaw li may conseil booy daal mooy nañ gëm liñ doon. Hmm. lépp la liggéey moo xam mosoom ngay def moo xam carpenter moo xam lu ne. Hmm. mais gëmal sa bopp gëmal na yow jàmbaar nga. Hmm. gëmal na yow champion nga. gëmal na yow ama champion boo ko defee ci àdduna bi di nga mën a am. wéykat bi nag maa ngi na ko maa ngi koy wax mu jàng ji. waaw su mënul na jàng ji parce que dafa nit jàng. àdduna yëpp jàng naa. jàng ayul. te ñàkk a mokkal ay. te boo jàngee boo tëri boo mokkalee ayul. li bon nga jàng ba pare te tëri mokkalul. waaw nañ jàng ji ma. am na ñuy wax ne musique euh, xam naa ne lu dese si time bi bëri bu baax da ngeen maa mere xam nga man moom su ma amee gari naan naan damaa bëgg a wax a wax a wax a wax di ko laajte rek mu leer. yaa ngi ko si mooy bio bi yëpp a de leer. yéen bëggoon nañoo xam ndax am na ñoo xam ne dañu ñëwoon. ah bëggoon naa musique pour start waaye aw ma xaalis. ndax foog nga ne euh, musique bi soxla nga xaalis bu bëri pour commencer ko. waaw xam nga li njëkk ci musique mooy gëm-gëm. ambition mooy njëkk mooy bëgg. Mm-hmm. après bëgg ci boobam doole après bëgg ci boobam xaalis. Mm-hmm. xaalis nag moom ci lépp la bokk parce que musique mooy mm-hmm. man musique bu may def ci boobam man ah, ah, fukki musicien ak ñaar ñu may ñoo sama kooku ci boobam moom nga nag waaye nag tolluwaay la. man xëy ma def loolu. musique moom dégg day métti. parce que day bu dee amuloo nga bëgg a dem studio. day métti parce que pour ñu naan sax xam nga àdduna moom bu amul bu amul pour ñu naan lay yomb. lu ma waral ci boom booy yi des fois. su ma defee premier semence moo dem jàngi musique. Mm-hmm. ma xam musique. Mm-hmm. après ñu bàyyi yàkkamti yàkkamti baaxul. Mm-hmm. a génne loolu xel. musique yombul daal. musique musique xaalis la après ak gëm-gëm. ambi ambition. ambition moo njëkk nag ambition mooy mission la. li nga bëgg di ko def boo ko defee conquérir. mungkin mooy ngay liggéey liggéey non musique passion la li nga bëgg di ko def bokkut ak loo xam ne ci boobu dañ ko bëgg. Mhm. waaw nit ki lim man rek. Mhm. bu waxee dina fekk. ñu mhm. bàyyi naxante bi ñu bàyyi naxante bi daal. ndax euh, musique mën nga koo def kese boole si bu ngaa def musique kese wala da ngay def musique ak business. mën nga jàng parce que boo nee xale moom jàngal moo njëkk jàng mooy jàng jàng boo am na musique nga liggéey nga musique sa musique am doole. mais soo bàyyee lépp trop musique sa musique amul doole. sa musique bu yow yow yow doo yow léegi raadu naa dafa am loo boole musique bi na si. musique la musique lay joué musique moom mooy yóbbu fu ne musique moom mooy dugal avion musique moom mooy dugal oto musique moo jox lu ne. gàcce ngalaama musique mbalax ambiance. Mm-hmm. ñu ne ñu ambiance rek gàllankoor ñu ne ñu mbalax ambiance. Mm-hmm. loolu la ñu xam parce que loolu la ñu loolu la ñu jàng loolu la ñu tëj. waaw mosuma daf hip hop nag def naa ko boo def naa ko ñaari at. jàngee fii ma bàyyi ko def mbalax parce que loolu laa daan loolu laa xam. bu mm-hmm. dee li nga naan pour ngay jiw ay doomu jiwante. macha allah. loolu moom ñun ñoo ko déggandoor ma ne ko loolu moom ñoo ko déggandoor xam naa ne gars yi li ngeen bugg a xam yëpp lekk naa ko nag yéen it ah. ah dafa des si ñoom rek. Ah. dafa des si ñoom li mu bugg rek yow yaa ngi fi li mu bugg man xam nga ñoom war naa leen ne li ngeen bugg rek laay def ki ngeen bugg laay andi. li ngeen bugg laay laaj te li ngeen bugg rek laay def am ñoo xam ne buñu déggee ne yaa ngi ñoom ñoom dañ na dee fulo Sénégal ñu ngi woon ah kii dañu ko dee gis TFM ñii naan dañu dee gis DSS ah. te naa sa kanam bi moom nekkul kanam bu ees si si si télé bi. non non non non. waaw ok léegi kan nga am fu jaajëfal balaa ñu. waaw maa ngi bëggee sama xarit sama lépp sama teewul sa kii mag yaa. yéen a la bu muy def moo waaj. dafay dee ci man di bëggee Cheikh bi. di bëggee sama waa famille di bëggee Awa Ndiaye. di bëggee ñëpp di bëggee ñoom. Ibou Diallam di bëggee ñoom Mama Mama Alex di wax gars yi ne leen saw daf di bëggee tamit Salah ndeysaan jigéen ju mën góor la leen bëggee di bëggee seen waa TV bi yëpp di ñaanal yàlla balaa leen mu yéeg ci kaw ay leen aduna bi di ko dégg ba ma ñëwaatee Gambie yàlla na ci kaw a kaw a kaw waaye di ñaanal di bëggee Gambie di wax ne na gars yi moytu corona bi na gars yi bàyyi si kaw waaw yow ya loolu si corona bi corona bi nga toj jàng yaakaar bi corona bi lu am la lu am la ci gars yi xel lu am la am na am na bala ngaa naan ma ah kii na sa gan bi jotul max bu baax. <laughs> man maa ngi nii tey samedi ba bëgg a yee takk ma. takk naa ma suba léegi. waaw déedéet des na des na gën ko. <laughs> kon nag yëg ko ci kaw. <laughs> kon mu ngi ci kaw ah. waaye du li ngeen bëgg léegi takk na la. waaw ah, takk naa ko. ah balaa si sa Eva naan ma kii ah lii daal lay conseillé gars yi daal nañu daal nga xam ne corona lu insisté la. di raxas ay loxo daal loxo na yoon tey. waaw yow miin saafante. waaw na lii benn instant day jeex rek. ñu teewlu ci nii ba gars yi jàpp na lu war a jeex day jeex. day jeex kàttan yàlla. loolu nag war na moo dem de ñu soxla dem de kaay ak ngi caali. c'est que géwél yi dégg naa ñoo ngi naan caali. géwél naa ngi caali sama mbokk yi moom ñu ngi jógee waaye nag ba gars yi gëm ne lii. ay système am na yombul nag parce que nga toog sa liggéey mënoo liggéey. mënoo def dara ah dana sant yàlla affaire yi moom lu yàlla wax noonu la. corona demal waay gars yi ne corona jigéen la ma ne leen corona góor la moo tax mu dëgër. ñu ne leen jigéen la ah ma ne leen corona de moom góor la moo tax mu dëgër ba fa gars yi ne leen jigéen la jigéen day siisu rek ma ne leen ah waaw léegi euh, gars yi ba tey rek euh, ñu ngi fii si Voice Out Digital euh, comme ni ñu ko defee rek programme bi yow di leen a andil lu tos di leen a andil lu nees léegi daal balaa ñuy tëj moom nuyoo na ñëpp daal bëgg naa mu may ma tuuti suma yaatu toj. ah yaatu toj bi nekk na soo boo xam ne right now Gambie boo fi nekk di toj. dèjà yaa fi toj. waaw yaa fi toj. man waaw man moom comme naa ne toj naa moom. <laughs> waaw yow daal ma gëm naa ne toj naa waaye may ma tuuti rek yaa si yaa fi toj bi ñu tëj daal. nee na ma yow yaa fi toj waaye. ndeysaan. dama dem ba Sénégal dégg ñu ne yaa fi toj. ndeysaan ñu ne fi toj. di la yow yaa fi toj. waaw waaw man moom gëm naa ne maa fi toj. fi toj. ndeysaan ma ne man maa fi toj. ndeysaan ñii la fi toj waaye yéen ñii. ndeysaan yaa fi toj. yaa fi toj waaye. waaw jox leen mos ma xaalis bi ma fay kii yéen. li dafi toj moo tax mu demee nii mag yéen ne naa dem ak yéen ba Angleterre. ndeysaan. yi dafi toj. waaw ñun Sala yaa fi toj. ah Moussa yaa fi toj waaye. tey waay. li mag yaa fi toj. te ah. daal Ida yaa fi toj yow. ah. ndeysaan la Gambia yëpp a ngi leen di seetaan. ndeysaan. maa ngi conseillé képp kuy bëgg liyaa. ndeysaan daal yaa fi toj si sa tiida. ay woo. yow yaa fi toj. waaw eh, man maa la fi toj. Eh, Moussa moo fi toj. Salah moo fi toj. ñun ñoo fi toj. yéen ñi ne dégg Salah waxtaan nga ci musuma foofu salade bi ma dégg ko kii. yéen a ma ne musuma amoo ko si xeetu bi ma jóg. man kay bi may woyal la. duñ maa woyal waaye woy bii moom. dinaa dinaa ko dugal Instagram dugal ko Facebook dugal ko YouTube. fu nekk nii gars yi képp am jamono bii rek laay dugal message. waaw ah, saa su nekk rek comme ni ma ko dee defee si yaa fi toj wax naa ne dafa am ñoo xam ne moom dañoo bëgg a di ma salal di jaajëfal suma ñëwkat bi Amadou. xale bu ma nangul la xale bu ma déggal la saa yi ma ko ne am naa yaafu toj rek pare na pour ñawal ma tey nag mu génn ak man si grand boobu nees bi ne ma demal nga sol ko si yaafu toj bi felfelaale def lu la ne ah di jaajëfal ah, ñépp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan yaafu toj bi di ko béggee yéen bi toog bàyyi seen time yi all time di seetaan yaafu toj bi ah, di leen a wax thank you so much di suma yaay nag saa su nekk ah, du ma sonn di ko ñaanal na ko yàlla jégal ko ay bakaram haare ah, ko si aljana yi gën a kawe di ñaanal suma bopp tamit yal na ko fi yalla baye bi ci kanam ah di wax suma cameraman bi Moussa tamit thank you so much sa su nekk mu ngi ànd ak man be fu yaa fi bi jeexee Sala Ndiaye nak ba tey mu ngi Gambia ni rek la bu mom tay bu ko ma ci wax sa musóor yi moom mu fi rek waaw góofoon bi xam naa commencé gut wa su commencé rek dinañ dinañ dinañ le lëndoo de ngeen ah thank you so much I am your host di Dike Badji ciao